Merci de choisir la 7 TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres, c'est tout de suite avec euh, Grégoire Gomme. Bonjour Grégoire. Bonjour Charline Rafidi. Dans l'actualité, le cas Lansana Gagni Saho, celui qui a nouvellement été nommé directeur général de l'APIX, il est empêtré dans des scandales présumés à rallonge. Un en particulier cristallise l'attention depuis euh, le week-end, la gestion des 7 000 milliards dédiés au programme de lutte contre les inondations alors qu'il était à la tête de l'ONAS. Tantôt pro-Paki, désormais pro-Diomaye, ces changements de position ne surprennent plus les détails dans cette édition. Pendant ce temps, euh, la pluie n'attend pas. L'hivernage s'est installé avec son lot de dégâts, notamment les inondations qui créent ainsi la psychose chez les populations. À Dakar, dans la banlieue et même dans les régions, notamment à Touba, c'est euh, les populations revivent le traumatisme des années précédentes. Et pour terminer, indépendance de la justice sénégalaise, une épine qui persiste. Maître Henri Valentin Gomis propose ainsi des pistes de solutions, neuf propositions notamment. Nous les verrons dans cette édition. Voilà pour l'essentiel des grandes lignes de ce journal. Tout de suite, nous passons au développement. On commence donc avec le cas Lansana Gani Sarro en visite à Saint-Louis samedi dernier. Le Premier ministre Ousmane Sonko avait soulevé un scandale présumé portant sur une somme de 60 milliards de francs CFA de l'argent euh, qui devait servir à installer des infrastructures dans 10 localités du Sénégal. En réalité, Charline, le projet auquel a fait allusion le chef du gouvernement avait été confié à l'Office national de l'assainissement à l'époque dirigé par Lansana Gani Sarro. Rappel des faits avec Papa Bandagay. Au lancement du projet des 10 villes dans de Saint-Louis. dëkk ci Sénégal war faa def 60 ñu def fa assainissement te Pikine bokkoon ci. Pikine di connaît de gros problèmes d'assainissement. Programme d'assainissement de 10 villes. Nous sommes national de l'assainissement met sur pied un projet en réponse aux inondations qui secouent le pays. Ainsi est né le programme d'assainissement de 10 Pikine Louga Rufisque Tivaouane Matam Kaolack Tambacounda et Touba le plan est exécuté par le directeur général de l'ONAS d'alors qui n'est autre que l'ancien Agagne Sakho comme sur ces images prises à Saint-Louis Pikine va être touché, Guenda va être touché, Ndiolofène va être touché, Katrina va être touché. Je pense une avancée significative qui correspond à la vision de son excellence le président Macky Mais des années plus tard, le problème persiste. les villes ciblées par le programme en question sont encore frappées de plein fouet par les inondations et la réalisation des infrastructures prévues tarde toujours. En une localité retient particulièrement l'attention du Premier ministre Ousmane Sonko. Il s'agit justement de Saint-Louis. Il fallait ñu def fii station d'épuration lan moo tax ba tey station boobu tabaxuñ ko te nee ñu xaalis bi seey na dem yoonam nañ ñu wax 60 milliards la ko gars yi dugal. L'actuel t il alors bien géré ce Serait-il mêlé de près ou de loin à une affaire supposée de détournement évoquée par le Premier ministre Ou alors, y a t un retard dans le financement du projet, comme évoqué dans la presse Pour bénéficier de ces éclaircissements, nous décidons de le contacter. journaliste à la CTV. Oui, Oui, ça va. Et vous, comment allez-vous Super. mais euh, il refuse catégoriquement de répondre à nos questions. Je ne souhaite pas en parler, monsieur. Hein Je ne ah, Vous ne souhaitez pas en parler Non. Et raccroche aussitôt. Et c'est alors une forme d'aveu des accusations qui pèsent sur lui. Quoi qu'il en soit, Lansana Gagnissaro, récemment nommé PCA de l'Agence de promotion des investissements, devra rendre compte de sa gestion du programme d'assainissement des dix villes, tel que demandé par le chef du gouvernement. Incident, l'ancien directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, Lansana Gani Sarko, est empêtré dans des scandales à rallonge, épinglé par plusieurs rapports. Il retourne au pouvoir après avoir été nommé directeur du conseil d'administration de l'APIX. Hier avec Macky aujourd'hui avec Ousmane Sonko, retournement de veste qui ne surprend plus. Regardons justement cet éditorial de la rédaction. La SANA Gagné Saro est une race d'hommes politiques à éradiquer dans l'espace public pour éviter toute reproduction qui serait nuisible au bon sens, à la raison et à la réflexion. Il est l'incarnation parfaite de la ville transhumance politique, sans base idéologique et foncièrement motivée par des intérêts bassement matériels. Expert en aventure politicienne, l'homme a goûté presque à toutes les sauces politiques. Avant-hier, il jouait abstraitement aux faux théoriciens de la génération du concret. Hier, c'était les insignifiant cadre dans l'Alliance pour la République. Aujourd'hui, il se présente comme un homme politique vierge en rejoignant honteusement le parti d'un homme qu'il en 2019 comme un danger. Sonko est inspecteur des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

Un choix parti pour battre le record des nominations les plus scandaleuses de la gouvernance du président Bassirou Diomaye Faye. Pourquoi parce que la Sénégalais Saro est le symbole vivant de l'absence des convictions politiques, du fait de sa versatilité idéologique et de sa vacuité intellectuelle. Vous avez des gens qui n'ont jamais travaillé dans leur vie, qui n'ont jamais rien prouvé, qui se lèvent bon matin, qui se mettent à sortir

Dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations de 2012 à 2022, l'ONAS était chargé du volet drainage des eaux pluviales. Sous la Sénéganis Saro, ce volet n'a pas été exécuté correctement. Ces errements dans la passation des marchés ont toujours attiré l'attention de la Direction centrale des marchés publics. En novembre 2019, des travailleurs de l'ONAS l'accusaient d'avoir attribué un marché de 208 millions de francs CFA qui n'a jamais été exécuté pour le curage des caniveaux dans la ville de Louga. L'autre scandale, c'est le projet de la dépollution de la Bédane qui constitue la preuve la plus marquante de l'incompétence de Gagny Saro. Aucun mètre carré de la Bédane est dépollué à ce jour. Un scandale de plus dans la piteuse carrière de cet homme à la morale n'a aujourd'hui que l'arme de pour plaire à ses nouveaux maîtres qui lui ont filé la petite prairie du conseil d'administration de l'APEX pour brouter en attendant la prochaine saison. Et pendant ce temps, Pape Malik Thiam, l'hivernage est bien présent et à Grand Yoff, il est source de psychose. Les quelques gouttes tombées à Dakar ce week-end installent donc la peur chez les habitants de cette localité confrontés aux inondations et ce depuis plusieurs années. Cependant, Charline, ces dernières espèrent moins de dégâts pour cette année, contrairement aux années précédentes. Les populations sont mobilisées ainsi pour accompagner les actions de la commune. Grand Yoff est l'un des quartiers de Dakar qui sont confrontés à la problématique des inondations à chaque hivernage. Cette année encore, les habitants de cette localité se préparent à faire face à cette situation qui perdure depuis des décennies. Depuis 1966, je suis venu à Grand Yoff en 1966 et depuis que je suis dans cette localité, nous sommes confrontés aux inondations. Nous prenons nos dispositions, certes, mais les conséquences sont toujours là. Même si elles n'ont pas encore occasionné de dégâts, les premières gouttes de pluie tombées sur la capitale ont installé la psychose chez les populations. Ce qu'on a vu ne nous rassure pas. Si ça se répète, on risque de vivre ce qu'on a vécu les années passées. On pensait que le BRT allait arranger la situation, mais malheureusement, il n'en est rien. dell ba canal bi fees fii yëpp fees romb sama buntu place. Cependant, les habitants espèrent que cette saison des pluies sera différente des précédentes grâce aux actions entreprises par la mairie. Les dernières années, c'était très difficile. Les gens évacuaient leur maison pour aller euh, trouver refuge dans les écoles. La mairie est en train de faire des efforts conséquents. Le reste revient à la population. C'est dans son intérêt. boo ko si góorgóorloo dina baax. Les jeunes aussi, de leur côté, ont décidé de se mobiliser pour accompagner la municipalité. Nous nous mobilisons à chaque fois pour évacuer les eaux, mais avec nos moyens très limités, nous ne demandons qu'une aide. Les pluies enregistrées ce week-end ont créé des inondations dans certaines localités du pays, comme à Kaulak et à Touba. Mais à Dakar, il y a eu plus de peur que de mal, ou du moins pour le moment. C'est aussi le cas à Guédiawaye, euh, Matarbari, où les premières pluies ont occasionné euh, des inondations. Bien des artères sont à ce jour devenues presque inaccessibles. Et les populations assez désemparées donc tendent la main à l'État du Sénégal. Regardez. Puis nous reviendrons sur ce reportage euh, euh, euh, niveau euh, de par rapport aux inondations qui ont rendu donc les artères impraticables. En attendant, nous prenons la direction de la ville de Touba, à l'instar de plusieurs localités du pays. La ville a enregistré ce week ses premières gouttes de pluie, rappelant les traumatismes des inondations aux populations. À Carignan, plus précisément, là où abrite ainsi le principal euh, bassin de la ville sainte, les populations euh, souffrent suivant le reportage. Plusieurs localités du pays ont reçu le week-end dernier leur première goutte d'eau de pluie qui marque le début effectif de l'hivernage dans le territoire national. Touba n'est pas en reste. Après des heures de pluie dans la capitale du mouridisme, plusieurs artères, rues et concessions sont envahies par les eaux pluviales. À c'est le désarroi total. Chez les sinistrés. Nous sommes vraiment fatigués. Le bassin ne sert absolument à rien. Il est trop petit. Aidez-nous. C'est extraordinaire, vous voyez, nous sommes très fatigués. Toutes les maisons sont inondées. Ce qu'on endure ici est trop dur. Des personnes sont déjà mortes ici à cause de ça. Habitant le premier bastion de rétention de la localité, Kenyang est dans l'oubliade. elle ne dispose aucun regard pour évacuer l'eau pluviale. Aucun canal, vraiment. Nous avons besoin d'aide. On n'en peut plus. L'une des principales préoccupations des sinistrés de Kernyang sur ces inondations, c'est le grand magal de Touba qui s'approche et qui sera célébré en plein hivernage. C'est vraiment compliqué et le Magal approche à grands pas. C'est notre préoccupation majeure avec les invités que nous allons recevoir. Ces inondations qu'enregistre Kerriang depuis la mise en place de ce bassin de rétention il y a de cela plus de 15 ans a provoqué un véritable cauchemar chez les habitants et a même occasionné l'abandon d'une centaine de maisons.

Ils sont silencieux et le stress se lit sur leur visage. Les yeux rivés sur leur téléphone, les candidats au baccalauréat 2024 attendent sous pression la traditionnelle délibération. Mais à leur grande surprise, les résultats leur sont parvenus via SMS. Tout de suite après, c'est l'euphorie. Pour les candidats admis au premier tour, impossible de retenir leurs émotions. Alhamdulillah, euh, je veux juste Alhamdulillah, je suis, je, suis, je suis content. Oui, Alhamdulillah, moi je ris aujourd'hui à la maison. En fait, je suis contente et en même temps je suis surprise parce que en fait je ne m'y attendais pas. C'est venu comme ça, j'étais tellement surprise. En fait, je suis tellement contente aussi. C'est toujours J'arrive pas à La s avec euh, 194 euh, candidats qui ont Donc on a eu au premier tour 73 admis et 54 euh, Pour la série S2A, on ont été admis d'office et 15 ont euh, euh, pour la série LA, l'effectif était de 29 candidats, donc 8 ont été admis d'office et 13 euh, admissibles. Euh, ensuite, il y la série LAR. Donc l'effectif était de 124 candidats. Donc 32 ont été admis d'office, donc 30 pour le, second, pour le second tour. Des résultats jugés satisfaisants par le Je pense que dans l'ensemble, euh, les résultats sont, euh, sont, <laughs> sont, assez satisfaisants que ça va tourner autour de, de 45%. Quoi. Et je pense que est pas mal. Quoi. Les candidats autorisés à passer le second tour devront se soumettre aux épreuves à partir de ce mercredi. Ils auront une seconde chance pour compléter le nombre de points manquants. Bac 2024 toujours, du côté de Kolda, les résultats sont peu satisfaisants au premier tour. En série S comme en série L, les candidats ont buté sur plusieurs matières de base. Des cris de joie par-ci, des pleurs par-là.

lycée Alpha Molo 88 49 Youssouf Seydi mention assez bien lycée Alpha Molo Baldé au jury 10 38 série L prime sur candidats 20 au premier tour 60 déclarés admissibles en série S2 sont admis d'office autres vont devoir compléter des points sur 93 candidats au jury

passe tous, là euh, L'espoir est toujours permis. Kolda a d'ailleurs toujours fait de bons résultats dans le public. Ce sont les candidats libres et ceux du privé qui tirent la tendance vers le bas. Nous parlons à présent d'autre chose. Nous l'annoncions dans les titres indépendance de la justice sénégalaise. L'avocat à la cour euh, Henri Valentin Gomis a fait une contribution écrite dans laquelle il a donné des pistes de solution pour euh, justement une indépendance de la justice. Au total, Charlie Dilo propose neuf réformes dont entre autres le renforcement du Conseil supérieur de la magistrature, la modification du mode de nomination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 Sûr, puisque Bassirou Diomaye Faye a donc été élu pour 5 ans et non pour 100 jours. Il n'y a pas de raison de, de s'emballer ou il n'y a pas de raison de désespérer, puisque c'est un travail de refondation. Ça, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, puisqu'il faut à la fois découvrir l'État, euh, comprendre l'État pour eux, pour le directeur, pour les gens nommés, et à la fois agir très rapidement dans un contexte économique qui ne vous attend pas, dans un contexte social qui ne vous attend pas, dans un contexte euh, géostratégique qui ne vous attend pas. Donc c'est beaucoup de chantiers avec, à, à, la fois, beaucoup de découvertes à la fois, beaucoup d'initiatives à prendre à la fois, et le tout pour une équipe assez, assez réduite avec ses propres limites. Donc je pense qu'il faut leur accorder du temps, leur faire confiance, et, et, et travailler à épargner la situation économique du pays et, savoir qu'ils sont là pour 5 ans. Ils ne sont pas là pour 100 jours ou pour 100, ils sont là pour 5 ans. Autant qu'on pense cela et les laisser s'installer pour le bien-être des Sénégalais. Et puis déclaration de politique générale du Premier ministre, le député Abambay conseille ce dernier de revenir sur sa décision de faire cet exercice hors de l'Assemblée. Et selon lui, on ne doit nullement humilier l'Assemblée nationale qui mérite Je pense qu'il doit revenir sur cela. Parce que lui, c'est pas parce que les gens n'ont aucun intérêt dans l'Assemblée aujourd'hui qu'il faut humilier l'Assemblée. On est dans une démocratie de représentation. Cette Assemblée-là mérite le respect. Parce que c'est une Assemblée qui s'est battue pour le changement. Tous les textes de loi sont passés là-bas. Les gens sont battus, les a failli nous fracasser là-bas. On s'est battu, on gens sont battus à tout moment pour que l'alternance ait lieu. cette assemblée, c'est pas parce qu'il y a des opportunistes qui ont envie de plaire au pouvoir en place qui peuvent raconter n'importe quoi et qu'il faut humilier cette assemblée. Non, je pense que aujourd'hui l'article 55 permet de faire de, la DPG à travers un débat organisé. C'est ça se passe comme ça. Il peut venir faire sa DPG, parler aux Sénégalais, peut dans un mois ou avant le marathon budgétaire, la DPG appartient au peuple, cadrer son action et permettre au pays à corriger le règlement intérieur et à renforcer On termine très rapidement avec une note de culture suite à l'arrestation de sept personnes à Louga pour leur implication dans une vidéo qui a choqué, montrant des fillettes dansant de manière indécente. Les acteurs culturels et les familles des arrêtés ont demandé pardon et clémence. Et eh bien sûr, euh, face aux caméras, ils ont exprimé leur regret, annoncé la création d'une organisation pour sensibiliser. on s'est regroupé pour dire que c'est vrai que nous sommes des acteurs culturels, nous sommes des percussionnistes, nous sommes des lanceurs de message mais la situation actuelle qui a failli aujourd'hui l'arrestation, vraiment nous venons pour dire euh, pardon d'abord à l'État du Sénégal, pardon aussi à tous les chefs coutumiers et religieux de Louga, du Sénégal et du monde entier. Ce que vous voyez, c'est des percussionnistes, c'est des danseurs, c'est des artistes en général. Ils sont conscients de ce qui s'est passé. Raison pour laquelle on a pris nos responsabilités pour d'abord nous réunir, pour dire comment maintenant on va utiliser l'art comme métier, comme éducation. nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Les 100 premiers jours du président Bassirou Diomaye Faye font le menu de plusieurs journaux ce mardi. Le journal critique rapporte les critiques les plus vives qui sont venues du leader du mouvement Gumsa Bop. L'homme d'affaires Bougan Gaydani a dressé un bilan sombre de l'action du nouveau régime dont il n'a pas manqué de faire le procès. L'info note que Bougan Gaydani constate un projet illusoire face à une misère accrue terme repris par plusieurs autres journaux qui se font l'écho de la sortie du leader de Gëm Sa Bopp. Walf Quotidien fait observer que c'est par un quatre ans rythmé que Bougane Gueye Dany a évolué les cent jours des nouveaux tenants du pouvoir. Il évoque à ce sujet 100 jours de songe. Les vers de Bougane Gueye Dany sont repris par Tribune à sa une cent jours de songe, cent jeunes meurent à 100 pas de Saint-Louis, sans gêne pour Sonko. Le quotidien Les Échos, à son tour, pointe les critiques de l'homme d'affaires et ancien journaliste contre le couple Diomaye Sonko. C'est une bande d'impotiers plus enclins à raqueter le secteur privé Qu'a pensé les mots du peuple escroqué, écrit-il, citant Bougane Gaydani. Les 100 premiers jours du duo Diomaye Sonko à la tête du pays sont loin d'être un succès. Du moins, c'est l'avis du président du mouvement Gumsobop. Avance le journal Le Quotidien. Il rapporte que Bougane Gaydani demande au président Diomaye Faye et au PM Ousmane Sonko de mettre en terme au drame de l'immigration irrégulière suite à la mort de près d'une centaine de nos jeunes compatriotes. En plus de Bougane Gaydani, sur Macky Sall mais aussi Babacar Diop président du mouvement Dooleel Khalifa s'exprime sur l'action du nouveau pouvoir Source A rapporte que Babacar Diop juge certes qu'il n'est pas possible de faire le bilan du nouveau pouvoir cent jours après son installation mais il invite le Premier ministre à diminuer sa communication pour se concentrer sur l'essentiel Vox Populi ouvre aussi ses colonnes à Abdoulatif Coulibaly qui décline sa position dans une contribution intitulée 100 jours 200 faits contraire aux promesses faites. L'ex-secrétaire général du gouvernement sortant, Abdoulatif kulibali considère pour sa part que faire l'évaluation des cent jours du président Diomaye Faye et de son gouvernement, ce n'est pas facile. Le quotidien, pendant ce temps, donne la parole au doyen Maudignan qui accuse une lenteur dans la reddition des comptes et dénonce l'impunité des délinquants à col blanc. C'est tout pour ce revue de presse du jour. Très bonne Et c'est également tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Grégoire. Au plaisir, Charlida. Et à euh, 14 comme toujours, vous avez euh, le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.